alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin wa maulana muhammadin al wa ala wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ila yawmi ddin wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki jullit yépp ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ci bi ñu sunu borom tànnal di leen ndokkeel ci weeru tedd wii ñu nekk di ñaan yàlla mu nangul ñu sunu koor ak sunuy jaamu te jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen ñëw fii tey ci daara ji eh, sëriñ Xaadim ak soxna Ndey Màggat mi nga àndal ak sëriñ Cerno ngir am pas-pasu seq ak ñun jotaay boo xam ne jataayub leeral lay doon lu bari ci li aju ci daaro ji ak tolluwaayu jamono ji kon ñu ngi leen di sant te di leen dalal di ñaan sunu boroom seen ëtt bi nga xam ne ci ngeen di liggéeyee sunu borom defal leen ci lu kawe seen njortu te jëmale ko kanam ci barkeb Cheikhul Khadim. waaw daara ji moom ñu ngi ko sancoon 2012 mi ngi ci juróom-ñeenti atam fi mu toll nii ci ndigalit lañ ko sancee biñ ko sancee li ñuy tudde daaray cosaan moom lañ ko sance woon mooy dañ fee bokkoon nekk ak donga yoo xam ne buñ xëñee dañu yalwaan ni ndekki bu ñibbisee ñu jàngal leen bu añ jotee ñu yelwaane añ buñ dikkee buñ añee ba noppi ñu jàngal leen bu reer jotee ñu yelwaane reer buñ dikkee tëdd booba it ñi fi nekkoon amu ci kenn koo xam ne sa waajur yële fi indi am na dara lu ñu warloon teg daara ji noonu lañ sance woon daara ji loola nag dox nañ ci lu mat juróom benni at yoo xam ne ca loolu lañ nekk waaye ñu dem ba gis ne loola mu ngi jur ak sooxe ci liggéey bi ndax mbooloo mi doon na dolleeku te ña nga xam ne ñoom ay mukallaf lañ ci ñoom rawante nag ñi doon jàng xam-xam daara ji moo leen doon gàddu ci yoral leen seen añ ak seen reer ak seen ndékki loolu dem nag ba mujj gi mu diis ci daara ji taxoon mu feeñ ci njàngale mi lool ngir toogaay bi mënatu la nekk ndax faaw ñuy wuti luñ indil daara ji biñ demee ba gis na it loolu lu baax la waaye nag faaw ñu organiser waat daara ji ngir mu mën a dox ci doxin woo xam ne day ànd ak jamono di méngoo moom jamono bu nekk ci lañ soppi xar kanam bi def ko nag daaray internat loolu moom boobaak léegi mi ngi war a toll ci ñaari at boobaak léegi ci ñaari at lay war a toll biñ ko soppee def ko ko nag eh, tur wiñ ko wutal nga xam ne moom lañ tuddee daara ji mooy minal lawhil mahfuz loolu nag gaat nga la ndax benn lawxul maxfuus fa la lépp bàyyi ko ñu tudde ko daara ji waaye dafa amit xasida goo xam ne sëriñ bi daf koo lëggéey tudde ko tënke ko minal lawxil maxfuus te sëñ Mouhamadou Lamine Diop na nettali ca irwa un nadim ne bi ko sëriñ bi taalifee yónni woon na ko ndaw loo xam ne fam ko fekkoon mook benn waay ci lëndëm gu lëndëm boole ko di taw sëñ Modou Lamine nee na booba damay xalaat ci sama xel naan bu ma duggee ci sama biir bàmmeel ba lëndamaay ba mel nii su boobaa lan mooy doon sama tontu bu ma fa ñaari malaayika yi fekkee muy munkar ak nakiir layta chiari maada yakunu jawaabi in ataani fi turbatil malakaani nee na bi sama kàddu daanoo rek am ndaw lu accident ne kenn ci yéen nañu wuyu sëñ Bamba nee na <clears throat> bi ma demee mu daal di may jox Eh, xasida gi muy xasida gu tooy xipp daal di ne loolu mooy seen tontu seen biir bàmmeel bu ngeen duggee seen biir bàmmeel mooy seen tontu seen diggante ñaari malaayka yi xasida googee it nag ñu barkeeloo tur woowee ngir tudde ko daara ji nga xam ne jëmmi xasida googu moom dañ ko boole ci symbole yi daara ji nga xam ne gone yi moom dafa bokk ci ñi njëkk a mokkal ci xasida yi ngir mu mën a doon seen tontu ëllëg buñ duggee ci seen biir bàmmeel seen digganteeg munkar ak nakiir tàmbulee ci min nii li man lahul wujud wal xidam <clears throat> fii daara ji nekk nag muy daarul xadim moom dëkkub cosaan la boo xam ne euh, sunu maam sëriñ ma Masamba Kanni moo ko sancoon ci ndigalul borom Touba du sori nag 1913 ndax ndindi gi wax ne bis bi ko sëriñ bi di jox ndigal moo ko sëriñ Fallilu ak sëñ Mourou mustafa ak sëñ Masamba Mbacke ñoom la joxandoo ndigal ñu sañc ay barab ndindi googu moom wax nañ ne 1913 lañ ko sanc kon du ñu soree ab sanc sëriñ bi moo leen joxoon ndigal ci ñu sanc ko sëñ Masamba nag sëriñ bi wax nañ ni waxoon na ko ni eh, nekk fa di jaamu yàlla bu sama jumaa ji àggee ngeen di julli si ajjuma ku ko fa nekkee nag danaa la warlul ndox mu ñuul ak dugub bi suuna maanaam dana la war a doon ab dund boo xam ne doo ci toggoo benn coono eh, moom sëriñ ma sàmba moo sancoon barab bii Euh, am na ci ay njabootam ñoo xam ne fi lañu ñu feeñe jamono bokk na ci li ma wér sëriñ Cumbuleen Bousso mi nga xam ne moo jur sunu waajur sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Massamba Kanni tey jii moom fii la feeñ feeñe jamono euh, sanc boobu nag euh, dafa continuer mësula gent mësula gent naka jekk am na ñu fiy nekk mu bari mu néew njaboot gi am na ci ñoo xam ne dañ daan nawet si bu nooree ñu dem ci dëkk ba waaye nag ñu dem ba ñu tuubaa di màggee àgg ci mu doon rek ab quartier ci biir Touba ndax fii ñu toog di ko wax diggam ak jumaay Touba ja soo ko xoolee soriwut set kilomètres euh, bi ñu demee nag ba nga xam ne war nañoo taxawal daara sunu xel dajut fenn fu dul dellu siwaat ci sancub maam yi te muy barab boo xam ne ñoom loolu lañ fi nekkee woon muy jàng ak jàngale ñu dellu siwaat ngir salaat kóllëre googu yi nga xam ne doxoon na seen digganteeg borom Touba ci sancloo gum leen ko sancloo woon ñu nekk fi jaamu yàlla loolu moo tax ñu digg sancaat ko léegi nag euh, daara ji alhamdulilahi rabbil alamina maanaa internat lañ ko def boo xam ne mi na min allawhil mahfuus moo di aw turam madrasatu min allawhil mahfuus internat alquran la nag ak xam-xam dañuy jël ki toll ci jàng xam-xam dañuy jël kiy jàng alquran Euh, ñi nga xam ne ñooy jàng alxuraan xëy na beruñ leen ci dëkkiin wi waaye ber nañ leen nag ci programme bi ñaari jàngalekat alxuraan yi ñoo fi nekk ñaari jàngalekat ñoo fi nekk kenn ku nekk lim ba mu yor du doon lim bu bari ngir bëgg rek liggéey bi mën a mel na war a mel ndax ku ne xam na ni jàngalekatub alxuraan su fekkente ne yor na gone yu sori ñu toll ci gëndale wala ñuy ñu ñu ñu toll ci mokkal daanaka suñ baree rek liggéey ba du dana dana sooxe boo muy tuur ndax lañ war a tare ci moom buñ ko taree loolu mën na ko gàllankoor ci lu bari moo tax ñu tënk leen ci daanaka kenn ku nekk duñ bëgg euh, ci njëlbeen gi ak fi ñu toll mu yor lu ëpp vingt cinq personnes ñi jàng xam-xam nag man ci sama wàllu bopp maa leen di jàngalal sama bopp fii ngeen ma fekk nii fii ñu toog nii di wax ak yéen. Euh, bi ngeen di agsi gis ngeen ne noppeeguñ ci liggéey bi bi ngeen agsi noppeeguñ ci liggéey bi suñu xëyee fi la ñuy jàngalee xam-xam euh, loolu mooy mooy liggéey bi am na yit nag euh, ku fi nekk koo xam ne surveillant la boo xam ne mooy saytu liggéeyub daara ji bi ngeen ñëwee moo leen ubbil buntu kër gi moom moo yor ndongo yi ci seen wàllu set seen wàlluk lekk seen wàlluk naan seen wàllu tëddiin yooyu moom moo koy saytu moo koy toppatoo loolu rek mooy ab liggéeyam kon day mel daal ñeent ñooñu ñoo ko seq moom moomu ak man mi nga xam ne maay jàngale alxuraan di saytuwaale eh, liggéey bi ak ñaari jàngalekati alxuraan yi nga xam ne it ñoo fi nekk di jàngale waaw daara moom ak yalwaan dañoo ànd ci kaw bu dee daaray cosaan ndax euh, léeg lekk ni jamono di tëdde ki am pas-pasub jàngale ngir jëmmi yàlla te amut lum dundale ña muy jàngal moom mën naa warlu rek ku mën a yor sa bopp ci dund mu jàngal la su ko defee nag bu añ jotee wala reer ñoom ñooy dem yalwaani lu ñu añe yalwaani lu ñu reere tumuranke googu wàññiwu dara ab donga waxuma nag euh, yalwaani xaalis maa ngi jublu rek yalwaani ndékki yalwaani añ yalwaani reer loolu mii nañ ko ci daara ndax bu njëkk mag ñi biñ daan samp daara te loolu daawu ci am mooy dañ daan nekk ci àll bi nga xam ne dañuy bay maanaam donga yi bu nawet bee ñoom dañuy bay loo xam ne noor bi danañ ci mën a dund ba nawet bi dellu si te du jeex léegi nag ginnaaw daara yi barab yi nekk amul espace bu ñu mën a bayee te it jamono ji soppeeku na te kiy jàngale bu fekkee fayeekuwul yàlla dogal mu yor ci ab lim lu toll noo xam ne mënu leen a dundal faaw ña nga xam ne ñoom lay jàngal bu añ jotee ñooy yalwaane bu reer jotee ñooy ñooñu dañoo war seet nu ñu leen mën a dimbalee surtout ñu dëkk ak ñoom ak nu ñu leen mën a taxaw ak nu ñu leen mën a jàppale. léegi nag euh, bu dee ñun ñi nga xam ne nag soppi nañ sun barab yi nga xam ne internat lañ ko def nga xam ne gone gi buy ñëw ci daara ji moom day fay lu mat sëkk la muy fay nag ci la ab añam nekk ci la ab reeram nekk ci leen ndékkeem nekk ci la ak cetam nekk ci leen koy fóotal ay yéeréem kooku du soxla muy génn di yi léegi nag dañoo dem ba gis ne jamono toll na foo xam ne ginnaaw nekkatuñ ci àll bu ñu mën a bayee te it nit ñi taxawaay ba ñu war a taxawu ci daara dëgg dëgg dëgg donte am na ay benn benn yoo xam ne yàlla defal na leen taw féex ba ñoom ña nga ca waaye lépp ci nit ñi moom taxawaay ba des na kon ki bëgg a jàngale te bëgg koo nos ci anam goo xam ne situation yi donga yi dana tege ci condition yu baax njàng mi tege ci condition yu baax faw mu laaj pay goo xam ne mën naa diis ci ñeen ñi waaye boo ko dee xool day mel ne du méngoog sax la muy laaj dëgg-dëgg ndax daara yu baree bari soo dee xool man da ngay jàngale ngir jëmm yàlla li ñuy fay danañ ci mën a dund te sax loolu mën naa yeex man na mën ñuy fay lu yàgg te du fekk am na lim boo xam ne fekk àgg goo ca daara ji du mën a yor boppam nga xam ne bu weer dee ba ña war a fay fay ñëpp yaay wut loo ci dolli ngir mën a euh, daara ji mën a mën a mën a dund léegi nag euh, léegi la nga gis koo xam ne euh, la muy joxeel doomam day bari ci moom même bu fekkee vingt mille la vingt cinq mille ba trente mille loolu ku ne xam na ni gone gi moom boo ko joxoon mu yoral ko boppam nga ne ko rek jox ko gone gi mu yor ko su añ jotee na wut lum ci añee bu reer jotee mut lum ci reere ba weer wi dee loola moom mënalu ko ko léegi nag su boobaa ana lan mooy participation gone gi ci li nga xam ne moom la ñuy fay sëñ daara bi koy jàngal loolu parents yu bari duñ ci xalaat. dañ duñ xalaat ne li ñuy joxe du mat a naw ndax mënta dundal xale bi dund ba ci yel dëgg xëy na liñ doon mbooloo aljamaatu rahma mooy tax boo ko organisé ñu mën a dund te yow li la yitteel rek mooy nañ mën a añ mën a reer mën a set mën a nekk ci condition yoo xam ne dara du gàllankooru ci seenum njàng su ko defee njàng mi mën a dox waaye nag amul leneen loo jeey séentu yow kon buñ tollee ci jamono bii nga xam ne nag suñ boroom dafa wàccee mbas ci àdduna bi te ñu ngi ñaan yàlla mu yëkkati ko ndax yàlla rek moo ko fi mën a jëlee ndax mbindeef la moo xam ne ci ndigalul yàlla rek lay dox euh, benn sañ-sañ wala genn kàttan gu mu am gu tax mu mën a àgg fu sóobul yàlla amut wala mu mën a dal koo xam ne yàlla bëggul mu dal ko euh, la borom Tuubaa waxoon ne lépp lu ñu dal day loo xam ne yàlla nëmmut mu moy ñu waaye lu ñu dalul lu nekk day loo xam ne yàlla nëmmut mu dal ñu kon kum dal ku nekk xamal ne yàlla nëmmutoon mu moy la waaye kum dalut ku nekk xamal ne yàlla nëmmutoon mu dal la kon yàlla moom yi nga xam ne nag moom ci coobareem rek la mbir mi di amee moom la ñuy ñaan ñu jëlee ko fi waaye mbas moom yi ak ni ni niñ ko waxee surtout docteur yi ak euh, ndax moom li ci doy waar mooy gaaw wàlle gi la yemut ak benn tawat bu ñu mës a dégg gaaw a wàlle googi nag ak ni muy faagaagale nga xam ne xay na sunu réew mi ñu ngi ñaan yàlla mu yamandi fa euh, waaye àdduna bi boo demee ci bitim réew ni ngay déggee ni muy góobe ni muy góobee doomu aadama yi ci waaw benn bis xam naa jéggi dayoo ñu àgg nag ci ñu bëgg nit ñi toog ci seeni kër bañ a génn euh, boole kook tërala leen ay ay ay conditions yoo xam noonu lañ bëgg ñu di ko dundee loolu bu dee daara yu mel ne suñ daara yi duñ ci am jafe-jafe ñun waaye nag daara yi nga xam ne dañ daan yalwaani di dundee danañ ci am jafe-jafe ndax ñun ñi nga xam ne dañ daan jàngi di ñibbi donte sax loolu ñun gënaluñu lool lool waaye dëkkandoo yi tamit dañoo am àq nag ci jàng moo tax ñu ubbil leen bunt boo xam ne am na ñu ci jël ñuy jàng di ñibbi waaye bi yëf yi amee te ne nit ñi su toog seen i kër ñooñu moom lañ njëkk arrêté ñu toog donc yi nga xam ne nag ñoo nekk fii ci biir daara ji amuñ benn jafe-jafe ndax kenn duggut kenn génnut li nga xam ne docteur yi digle nañ ko lépp ñu ngi sàmmoonteeg moom muy cet gi ci eau de bi ñu raxasoog saabu yi ak gel bi nga xam ne dañ ko def ci loxo yi ngir mën a rey microbe yi nga xam ne mi ngi waaw un mètre de distance xam nga ay gone moom da nga mën a wax ak ñoom la nga bëgg waaye nag ñuy sàmmonteeg loolu toujours léeg-léeg mën naa jafe waaye li ci am solo rek mooy lépp lu ñu digle loo xam ne luy tax ñu mucc la yow nga àgg leen ko te taxaw ci sa kem kàttan ngir ñu def loolu loolu it ñu ngi ciy góorgóorlu suñu kem kàttan moom dañoo àgg sax ci lii daara ji di dunde jigéen ñi sax demuñ marché bii fi xew ba léegi man mii di wax ak yow man maay dem marché ndugum weerit lay dugg buñ ko indee ñu saytu ko ci daara ji nga xam ne kenn du génn fii mu ne la vingt cinq ba la passé laa demoon marché tey la ñaata fan tey la le neuf fii ne la vingt cinq lañu war a demaan marché nga xam ne jigéen ñi duñ dem fenn waaw axaka yi am na lu fi agsi waa tuubaa ca kanam lañ joxoon sëñ abibum sëñ fàllilu jox nañu ci sunub cër bu dee moom li aju ci mbirum mbirum li ñuy dégg ñu di ko wax loola moom agsi na fi su ko weesoo nag xam nga eh, nit ñi moom kenn ku nekk ak ñala yàlla booleel ñun am nañ ay jëmm yu ñu yàlla booleel yoo xam ne ñu jàpp daara ji lañ ñu ko fonk lañ ñu koy taxawu lañ ba yëf yi ne càppit fekk ñoom yàgg nañoo ñëw ci daara ji yàgg nañ ko xam ba yëfi ne càpp it ñoom ña ngi taxaw seen kem kàttan ci lu ñu mën a jàppalee daara ji ba du am benn jafe-jafe moo tax yooyu ñuy wax maanaam mu dem ci yeneen daara yi daara ñu yëg ne dem na ci rek suñu xol da cay sedd doonte ak siwut ci ñun ndax ñun yàlla ngi ñu dimbali ndimbal li ñu yàlla di dimbali nag tax na ba feneen fu nit yóbbu leneen rek loola suñu xol da cee sedd loolu ndax am nañ suñ suñ niti bopp ñoo xam ne bari nañ mënoon nañ leen lim kenn ku nekk ci ñoom kem kàttanam mi ngi koy jàpp ci daara ji ci bi dara xewagut ak bii fi xewee fekk na it booba même bu loolu amutoon it ñun ci sun sunu góor-góorlu ak suñ kàttan fas nañ yéene moom li ñu soxla weeru dee danañ ko jéem a dajale ak nuñ ko mën a amee teg ko ci barab boo xam ne moom la daara ji duñ duñ soxlawaat leneen. waaw weer wii ñu nekk na nga xam ne tey la la neuf moom feeñ na ci. feeñ na ci ndax am na ñoo xam ne euh, lañ joxe matut am na ñoo xam ne joxewuñ waaye nag taxul euh, ñu soññi leen ci maanaam bu weesoo daal nañ daan soññee ca ba dara xewul weesuwuñ ci ak ñoom foofu sonaluñ leen ci di leen toppaat ndax xam ne ni jamono ji xaw naa doy waar moo tax waxuñ leen dara ci wàllu boobu mhm. waaw bu dee fii de moom sama daara jii de ñun duñ jéng biñ ko defee internat bañ ko ko defagul nag muy daaree cosaan booba daanañ nañ waaye nag bàyyi woon nañ ko lu jiitu sax ñu koy def internat fekk nañu bàyyi woon ko waaw xam nga jéngit mbir la moo xam ne ñu bari dañ ciy wax te xamuñ ca lañuy wax dara xam nga ki fab doomam moom liggéey ab jéngam indil ko boppam jéngal ko boppam ne la damaa bëgg nga téyel ma ko fii muy jàng kooku lu ca mën a am wari su ta wax sëñ daara ba dara te jëpp mu ne amul benn sëñ daara boo xam ne dana jéng gone gu baayam bëggut mu jéng ko man gone gi ma mujj a jéng fii nga xam ne kooku sax du koy jàng alxuraan waaye xam-xam la doon jàng maanaa baayam bi mu ko fi njëkk a indi da ko booleeku jéng fekk na jàng na alxuraan ba mokkal baay bi baay bi moo indaale jéng bi ne ma dama bëgg ma ne ko ah fii nag defagu fi maanaam toggoogu fi bàkkaar bu jar ñu koy jéng nañ ko bàyyi mu toog ba mu def lu ko jar léegi mën nga fee bàyyi jéng bi ginnaaw bëgg nga ko bu ko defee ñu jéng ko ba ko defee ñu jéng ko ñu dem ba yàgg gone gi dajji jéng bi daw fekk baayam mu ngi Amérique foofa la baayam jóge jënd fa ay xomb ñëw jëndal boppam ceen ne ma nag dama bëgg ñu ma ci dimbali ba ma mën koo jàpp indi ko ma ne ko loolu moom boo ñëwee ci daara ji mën naa laa booleeg ay mag ñu la ci jàppale deux heures du matin la ñëw fii fëgg ma ma boole ko ay nit ñaari gone yu nekkoon ci daara ji mu ànd ak ñoom dem ba mu demee moo jàppal boppam doom ji indi ko bi mu ko indee bañ dugg ci kër gi it moo jël ceen gi defal boppam la mu bëgg na mu ko bëgg a yeewe tëjal boppam na mu bëgg a tëje xomb la ne ma mi ngi nii bu mu fi génnati daana li ma bëgg ñu dollil ma ko ci nañ ko tëjaat ci ab néeg loola moom moo ko sàkk woon waaye mujj gi it man maa jekki-jekki dindiwaat ko ci sama coobare waaw bi ma demee ba nga xam ne maslaa na maag gone gi ba gis ne man ak soppeek am na ci moom maa ko dindi dindi naa ko lu yàgg te bàyyi bi yëgul ne dindi naa ko bi ma nee ko dindi naa ko waaye gone gaa ngi fi defatul dara loolu da ko xaw a jaaxal loolu rek ci la ci nga maanaam ngir wan la ne bari na ñuy jéng du caagi ne suñ daara bi dafa soxor wala dafa bëgg a xor ñooñal xale bi wala da ko bëgg a teg mu attanut wala jéng day bëgg-bëggam li ëpp ci ñi ñuy jéng seen bàyyi leen fa indi ñooy indi jéng yi leen di jéng ñoom ñoo koy sàkku am na ñoo xam ñoo koy jéngal seen bopp doog leen a indi loolu it nit ñi ñu xam ko da ci am solo léeg-léeg nga gis ku ci wax ba attaqué suñ daara yi ba def leen ay noon seen diggante ñi ñu jàngal te fekk du ci ñoom man fii ne nag man jamono ji may wax a yow ku indi woon sa doom jéng koy duma ko jël boo ñëwee bëgg ma jéngale koy du ma ko jéng man loolu moom du ko defatu sama daara man waaw waaye bu dee koo xam ne nag nangu na ko it nag nga xam ne moom loolu amul problème am maanaam bala ñoo wax ak moom nañ wax ak jëf yi te jur gone gi ma noppi waaw ah, kooku la ñu war a waxal ñu ngi leen di sant kon di leen gërëm ci seen teewaay fii ci daara ji di rafetlu jàkkaarloo bi nga xam ne dox na suñ diggante ak yéen ndax lii yitte la te it bëgg a lu baax la euh, seen jubluwaay mooy defar naka noonu ñu ni suñu jubluwaay mooy defar kon nag lu ci jub te mat. ndimbalul yàlla la lu ci dëng te manqué loolu sunu matadi la waaye nag e, li doonoon suñu yéene rek mooy yéwenal suñ kem kàttan kon ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne moom rek moo am tawfiq mu defal ñu tawfiq in uridu ila al islah mastataatu ma tawfiqiya ila billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah